ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM ni lañ koy defee nag dimanche bu jot fii ci rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci daral Abdou Karim Sène moom mooy bokk moomeel bu Fimela ñu war a waxtaan ak moom ci commune bu Fimela di nuyu rek ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy déglu suñu mbokk auditeurs yëg auditrices yi ak internautes yi nga xam ni nag ñoom ñoo ñuy suivre si www.rewmi.com Karim Sène mooy suñu gan bokk moomeel bu Fimela ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni ñu nangulee invitation bi. maa ngi leen di sant. <laughs> Euh, maa leen di fay euh, di am mbégte vraiment ñëw jóge ba Fimela. Mm-hmm. ñëw euh, fii. Mm-hmm. Rewmi FM. Mm-hmm. nga xam ne. fii ci dakaar mu nekk lu rafet. loo xam ne maa ngi koy rafetlu. ndax tey. bu ngeen. demee ba jéggi. Mhm. bay dem ba ci àll bi. Mhm. di fa jël ay maire mhm. loolu ci sant yàlla la bokk. am na solo wane nga ne yéen Sénégal moo leen ka eh, ñor. donc maa leen ci sant di leen gërëm. comme réew mi FM lañ wax wax émission gox bi waruñu ko yemale Ndakaar dañ ko war a génne ñëpp fësal ñëpp ci lañ bokk. donc tey monsieur le dañ koy daal di njëkkee coronavirus bi xam nañ ni mi ngi ci réew mi ba tey euh, cas yi naam amoon na benn période bi nga xam ni wàccoon na. waaye léegi ñu ngi gis ni cas yi mi ngi gën a yokk ni ki tey rek 529 cas leen am ci li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi li ni mel nag dafa mel ni mi ngi bëgg a jéggi dayoo lan moo ci sa jàngat gu njëkk. Euh, jàngat bu njëkk mooy euh, feebar bi comme variant yi dañuy dafa bari ay variant mhm. euh, donc il faut que ñun ci suñu bopp. Mhm. ñu gën a moytu. Mhm. ndax bi mooy la la la troisième fois. Mm-hmm. saa yu ñu demee ba ne jeex na rek. Mm-hmm. affaire bi ñëwaat. kon euh, premier jàngat bi mooy surtout. Mm-hmm. fexe ba ñit ñi vacciné wu. bu ñëpp vacciné ñu am immunité. feebar bi dinañu mën a bàyyi. beneen bi mooy pratique yan doon def di moytu di raxasu. di takk ay masque di éviter ni contact yi aussi ñu renforcer ko. parce que pandémie bi metti na lool. Mhm. te wax dëgg yàlla euh, mu ngi yàq lu bari. Mhm. te loolu vraiment. Mhm. il ñun ñëpp ñu góor góorgóorlu ci. moytu euh, fexe vraiment xeex ko daal. loolu moo fi nekk. mais gis nañ ni monsieur le maire comme ni nga ko waxee euh, cas yi demoon na ba wàññeeku waaye ñu jékki-jékki waat mu yokk rassemblement yi mel na ni kenn respecté wutu ko ba ñenn ñi sax di wax naan. Euh, président de la république mooy responsable bi ndax moom moo fi commencé woon tournée économique yi kaay yi commencé jug du moom rek ak opposition bi itam naka la ñu mën a waxee ni rassemblement yi euh, ñoom tamit ñuy def ay tournée économique askan wi di dem nag lañ mën a expliquer loolu monsieur le waaw euh, xam nga wax dëgg ñun ñëpp ñoo demoon ba sentir na affaire bi yëpp dem affaire bi dem na. Mm-hmm. muy man muy keneen. Mm-hmm. donc euh, tournée économique yi président doon def. Mhm. mais euh, ba booy def tournée économique. solo mhm. ay masques gars yi dañuy sol ay masques. Mhm. da di feebar bi. moo nekk loo xam ne aussi euh, comme li ñuy wax vivre avec le le le, le virus. moo fi ne. parce que umpule umpulu la ne. bi jafe-jafe yi amee problème yi am. Euh, le fait que ñuy jëf yenn mesures yi. Mhm. gis nga la mu mujj jur Sénégal. Mhm. parce que ñëpp a bëggoon fi réew ko parce mhm. tëju neexul kenn. te feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne nit yi tàmmuñu ko. parce que boo xëyee laxaab laxaab sa sa sa euh, sa gémmiñ. Ah, fat say bakkan. Ah, du dëgg. di moytu. Ah, wala ñu ñu lay limital heure yi heure yi boo war a faj wàcc. dafa métti. te am na ñoo xam ne euh, ci. comme ça ñiy commerce wala ñiy def leen ci loolu la ñuy yëngu. Mhm. ci loolu lañ mën a faraatu. Mhm. dafa métti. Mhm. donc yërmande boobu. président am moo tax mu lever yëpp. waaw léegi est-ce que yow gisoo ni tey euh, mesures yooyu naam ñu ngi dem ci ay fête gisoo ni ñu indiwaat mesures yi ndax kaa yi mi ngi yokku de. waaw kaa euh, mu ngi yokk dooy nawaar waar parce que xam naa ne euh, fête bi bu ñëwee aussi. comme cas yi Dakar lay ëpp. Mhm. te Ndakaaru pratiquement ñu ci bëri. Mhm. dëkkuñu fi. Mhm. bu tabaski jotee ñi nga xamante ne ni dekkuñu Dakar. bu ñu fu jógee dem ci àll bi. dina gën a ah te loolu laa xalaat parce que euh, cas yu si si si cinq cent et quelques. presque la moitié. plus de la moitié c'est à Dakar. Hmm? parce que nee nga. 164 160 presque mhm. le tiers. ah le le tiers ak lu ëpp tuuti. Mhm. ndakaaru la. donc loolu mooy wane ne feebar bi ci capital bi la gën a. amee doole amee doole. parce que bi may wax ak yow may wax ak yow ni dëmb. toute la région de Fatick. benn cas la amoon. xaw ma nag tey. mais loolu loolu moo fa amoon. su ma juumul ci li ma li ma dégg Euh, kon feebar bi. Mhm. il faut ñun ci suñu bopp ñu moytu ko parce que euh, loolu mooy suñu jàmm. Mhm. ndax ñun maire dañ ci sonn jënd nañ ci ay ceeb. Mhm. des tonnes de tonnes de ak état bi li mu def. boole kook ñi nga xamante ne ni aussi dañ doon liggéey seen liggéey paralysé nga yow nga nekk maire. Euh, ñu dënk la gox nga war leen dimbale. donc loolu daf ñu sonal. ñun njiit ñi ñun la gën a sonal. Mhm. kon ñu ñëpp ñoo ci war a góorgóorlu. ok yéen ñëpp yéen ci war a góorgóorlu kon ci naka noonee itam euh, da jàpp ni kon solution bi euh, askan yi mooy ñu war a dem ñàkku ji lañ. waaw parce que euh, xaw ma ndax loolu moo am wala amul mais aux États-Unis il paraît que vaccin ba ba ñuy commencé di vacciné wu benn vaccin ngay def yaa ngi dégg. Mhm. jour bi nga koy vacciné wu jour boobu ngay tekki sa masque. du dëgg mm-hmm. xaw ma ñun peut-être jotaguñu ci vaccin yooyu mm-hmm. mais ñoom euh, fi mu toll nii foofu la gënoon garawee mm-hmm. te fi mu toll nii foofu xaw nañ tane par rapport ñun cela veut dire que nañu multiplier vaccin yi na nit yi dem aussi vacciné wu parce que amul euh, pandémie boo gis vaccin moo koy dindi ñu bàyyi wax yi wax yu nga xamante ni teguwul maana amul sens. ñoo xam ne dañuy yàq quoi. ñuy yàq. di influencer nit ñi di wax loo xam ne woo naa li ñuy wax teguwul ko teguwul fen mhm. man du ma vacciné parce que vaccin bi na nangam parce que tey. Euh, boo xoolee euh, produit pharmaceutique yi ñuy comp yi ñuy consommé yëpp. Mhm. Europe lay jóge kon tubaab yi bu ñu fekkoon ne del nañ intention pour sànq ñu. ah mais duñ ko jaaral ci ay pandémie ci ay ay yooyu du dëgg. kon vac comprimer yi nga xam ne ñu foofu lañu koy liggéey ci ñoom ñu ñu koy ñu koy jënd di ko fajoo. Mm-hmm. ci la ñuy moom la ñuy jox. Mm-hmm. donc am na wax yoo xam ne amul sens. Mm-hmm. ou bien yow nga nekk Europe sa teraa nga nekk Europe. yaa ngi dégg. ngay liggéey Europe di fa daan sa doole ay tubaab di la dimbale. ah ngay naan tubaab ñii baaxuñu te sa teraa nga ne foofu ah wala ngay def ay ay vidéo di wax ay wax yoo xamante ne Sénégal loolu moo ko yàq. pratiquement ñi nekk bitim réew. Mhm. war a war a teg seen bopp euh, Sénégal ci yoon. Mhm. ñu li li Sénégal yi di dund. ñoom ñooy toll foofu diw def diw def ay vidéo di wax yoo xam ne amul sens. on n'a pas besoin de ça. du dëgg gënuñu xam gën gënuñ ñoo mus. Mhm. gënuñ ñoo xam liy xew. parce que ñun dañuy tukki comme ñoom di dem di ñëw di gis réalité yi tubaab yi di ñu dimbale. fii may wax ak yow nii tey man en tant que li ma jëlee bitim réew indi ko fii mënu la ko wax ni mu ah ci coopération décentralisée peut-être mun nañ ci. egg ci waxtaan bi dinañ ci ñëw donc. Mhm. loolu la. ok dañu bàyyi yenn yoo xam ne yenn influence yoo xam ne day yàq. Mhm. détails yi parce que loolu baaxul quoi. ok ok comme tey ñu ñu ngi wax ci Covid bi euh, tey yow ba Covid bi duggee ba tey ci sa commune ban taxawaay ngeen ci am yéen sa commune bi nga xam ne jiite nga ko muy Fimela. bon neexoon na tey euh, may def émission bi waa laa di ma déglu ci ngay xam. ñu ubbi antenne ñuy déglu ci ngay xam la ma fa def ak la ma fa deful ndax su ma taxawee fii Ndakaaru di ko wax amaana am na ñu fi dëkk nekk fi laa am na ñoo xam ne peut-être mun nañ am jot pour déglu ko mais duñ am temps pour confirmer li may wax xaw ma ndax xam nga fi may wax ndax xamoo mhm. parce que euh, ubbiwuñu téléphone. dinañ ko ubbi après. Mhm. pour wax ci. Mhm. mais li wóor te mooy. Euh, la ma def ci commune Fimela kër xamul ni mu toll état bi jàpp na ci man en personne lu engagé naa lu mot parce que quarante tonnes de dugal ko ci. Mhm. pour jàppale population bi. Mhm. Jean Maxime Simon Ndiaye. Mhm. nekkoon ministre nekk à Palmarin. joxe na lu mot quarante cinq tonnes may ma ko. ak sama yeneen partenaires yoo xam ne ñii par ay cinq tonnes ñii par ay six tonnes ñii par ay homme de bonne volonté. la ay politiciens de. ñoo xam ne ils sont gis ne maire bi dañ ko war a jàppale. faruñ fen ah faruñu fenn. Mhm. ñëw nañ jàppale ma waaw loolu moom gis naa ko fa. Mhm. waxuma nag ay responsable politique yoo xam ne euh, euh, vraiment à mhm. part ñooñu gisuma benn. Euh, responsable boo xamante ne nii. ci ñi ma gis ne yaakaar ne war nañ mun a jàpp. jàpp ci. kon su ma la déggee na taxawaay bi ci euh, wàllum Covid bi sa commune euh, ràññee na ci ràññee na ci bu baax a baax euh, dimbali nga askan wi. tey ci koppar ñaata nga ci xayma liñ ci génne ci koppar ngir mën leen jàppale. buñ ko xayma moom wax dëgg yàlla dina bari de dina romb ay cent millions loolu moom xam naa ko. Mhm. ndax liñ dugal rek ci ci ceeb rek. Mhm. presque boo xoolee euh, waxuma la état. Mhm. mais les personnes ressources rek ça dépasse presque euh, que les trente et quelques millions. Mhm. Hmm? boole kook également aussi euh, gel mhm. yaa ngi dëgg. masques euh, yi masques yeeg. nga xam ne dama di commandé ay masques am na yoo xam ne sax dañ ko bind commune de Fimela. liñ ci commandé kenn xamul ni mu toll. mais est-ce que ñi nga xam ne ñoom nga doon accompagner aussi district bi. Mhm. Euh, les postes de santé. Mhm. yooyu yëpp. ñoom faral dañuy faral di sonn période Covid bi. ndax am nañ jàppandalu commune bi. oui mhm. dañuy sonn moo tax jàppale nga leen bu baax dañ leen di jàppale. Euh, renforcer seen dotation renforcer loolu yëpp. pour dimbale leen pour ñu mën a euh, vraiment aussi sécuriser. également aussi Covid bi dans la dans la commune. donc tey fan la ngeen toll tey kon ci sensibilisation bi. tey ñu ngi toll ci moytu na cas yi moom ab dugaagu dugaatul. Mhm. dugaagul fi mu toll nii. Mhm. ci commune bi comme cas yaa ngi yokku. ça mhm. veut dire ñu ngi mu ngi yoon ci mu ngi ci yoon di ñëw. ndax euh, kenn mënul contrôler pandémie bi peut-être ñun on a eu la chance jot vaccin yi. tout au début parce que boo nekkee maire. yow yaa joxe le bon exemple ñun ci premier vaccin yi laa jot vacciné wu. pour woon population bi ne lii ñeme naa ko parce que comme am na ñu doon am doute. ah yow mi nga xam ne moom yow la fa yàlla teg. Mhm. nga woon leen ne man dak nangu naa ah lii nga dem vacciné wu. Mhm. moo tax ma am chance vacciné wu euh, euh, sama soxna. Mhm. sëb semaine yii di ñu ñu jóge nii lay door a vacciné wu. parce que euh, vaccin bi aussi dafa amoon retard. ci ñun. voilà léegi est-ce que tey mën nañ xaar tey Karim Sène moom itam solaat dàllam. waxalaat ak askan wi itam ngir ñu gën a renforcer wu parce que dañu gis ni maire yu bari dañu commencé bàyyeeku nag. non loolu kay euh, bi ma ba démb rek maa ngi ciy waxtaan ak sama staff pour euh, ñu fexe sensibiliser nit ñi. Mhm. Euh, am na émission bu may wàcc parce que ñu am nañu rajo. Mhm. indi naa rajo Fimela. Fimela FM. Mhm. Euh, euh, président moo ma ci dimbale. Euh, mhm. avec le ministre. l' actuel. Abdoulaye Diop. non c' est pas Abdoulaye Diop. c' était en 2016. waaw avec ministre bu yoroon affaire poste télécommunication. Euh, je j'ai un j'ai un peu oublié le mm-hmm. moom moo ci jàppale woon. Mm-hmm. grâce à l'appui du président. Mm-hmm. ñu am rajo Fimela FM. rajo baa ngi fonctionné bu baax. moom moo couvre tout tout l'arrondissement de Fimela. am na solo waaw rajo boo xam ne vraiment. mu ngi dox bu baax a baax a baax a baax. mbokk yi ci émission tey gox bi ki nga xam ni moom moo di Karim Sène nekk maire bu Fimela lañ si invité war a waxtaan ak moom commune bi nga xam ni moom mooy commune bu Fimela tey monsieur le maire tey lan nga mën a wax ci commune. bu Fimela parce que ñu koy dégg bari na am ñoo xam ne mosuñu fa dem boo ñu doon defal taarix ci commune bi lan la euh, commune bu Fimela ñu ngi ko sant ci ban waaw commune Fimela nag euh, euh, bu njëkk bu dee bu ñu waxee commune c'est l'acte trois. Mm-hmm. mais communauté rurale la nekkoon. Mm-hmm. bu njëkk depuis soixante douze muy am ay président communauté rurale. Mm-hmm. man maay septième président communauté rurale ci commune Fimela mhm. euh, président ya fa yëpp benn mandat lañ def man maa fa falu 2009. Mhm. faluwaat en 2014 2014. Mhm. mais ku xamoon commune Fimela avant man may jël commune bi. xam ko léegi nga xam ne changement bu mag am na Fimela changement ci ban pacc tey ci pàcc yi yëpp. maanaam dañuy jukki benn par benn ci wàllum tey pàcc. Hmm. tey commune bi Fimela fi nga ko fekkoon yaa ngi ko atum 1972 ba tey. 2009 euh, waaw 2009 ba tey. Hmm. ak ah, ba si tey 2021. Hmm. yow ci sa mandat ci wàllum pàcc lan lañ fa mun a jàpp ak lan lañ fa mun a xam ni yow def nga ko fa. d'abord ci wàllum pàcc rek. Mhm. dans de domaine de la santé. Mhm. Euh, bi ma faloo en Euh, déjà médicament maa ngi fekkoon dotation ay trois millions. Mhm. ma ne lii c'est pas normal. nga yóbbu ko ñaata. la deuxième année ma doublé ko six millions. actuellement on est à douze millions. dotation médicament dotation médicament pour les postes de santé. Mhm. ñaata postes de santé nga am. huit postes. Mhm. bi ma ñëwee euh, dama fekkoon sept postes de santé. la fa fekkoon ci sept postes de santé yi maa fekkoon. amu ak ay case de santé. Mhm. case de santé yi ma fa fekkoon euh, presque ay néeg la woon. ndurul woon nag ay case de santé ndurul woon ay case de santé. Mhm. ma il faut qu'on change le statut euh, des cases de parce que un bon case euh, bu fekkee ne case de santé bu normal la. bu xaw a nëppoon norme sanitaire. Mhm. war na mun a am au moins trois salles. am salle bu ñuy consulter. Mm-hmm. am salle bu ñuy defee pansement am aussi euh, euh, salle bu ndaw boo xamante ne nii foofu la ñuy def médicament yi. Mm-hmm. am espace foo xamante ne nii patients yi dañ fay nekk. Mm-hmm. bi ma ñëwee euh, ma def des modèles de case yoo xam ne d'une valeur de dix millions. commencé di ko construire def naa benn marsulu def naa benn euh, Samba Diallo. Mhm. avec avec douze millions cinq cent équipé ko. Kobangoy loolu yëpp ay case de santé la. Mhm. ñëw nag construire un poste de santé à Yaayem poste de santé boo xam ne digne de son nom. Mhm. Euh, boo xamante ne nii fi toll nii euh, am nañ ICP. sage femme rek lañ dese. yéen a ngi koy xaar. te ñu ngi koy xaar. parce que constru ma dama leen bëgg a construire fu ñu jëm. Mhm. logement sage femme ba pare door a demander sage femme. yaayam ma mujj am poste de santé. Mhm. parce que yaayam ci fi mu laa la basé woon. xam nga au niveau des des post mhm. dans le domaine de la santé y a d' le district. juste ñun on ci district Diofior lan basé wu. nga ñëw. Euh, village bu amul poste de santé war dafa war am case de santé. Mhm. man sama village bu ci amul poste de santé am nga case de santé. léegi poste de santé yi nag. Mhm. boo leen joxee dotation médicament ñoom ñooy ñoom ñooy jox case de santé yi. parce que case de santé aussi dafa am limite fi nga war a yem. Mhm. dañ la ne ci feebar fii nga mun a yem bu dépassé yóbbu ko infirmier bi noonu lay demee yaa ngi dëgg. donc noonu la ñuy fonctionner dans la commune. donc domaine santé wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin am na yokkute est-ce que askan bi am na yokkute boo demee Simal par exemple. Mm-hmm. dama lëkkaloo nag wala Banque of Africa. Mm-hmm. construire naa fa euh, logement sage-femme ak une maternité. clôture poste ba. Mm-hmm. équipé ko boo xoolee d'une valeur de soixante six millions yoo xam ne dugal naa ko fa benn bu ñuy wax Simal. loolu yëpp euh, ci santé lañ ko liggéey. donc sant alhamdulilah rabbil alamin mhm. def nañ ci ay jéego yu rëy rëy rëy mhm. daaw en deux mille dix neuf mhm. def nañ pose première pierre poste euh, centre de santé secondaire à la bu nekkutoon Covid bi nii construction yi demaa na. kon dafa taxaw Covid bi dafa taxaw parce que Covid bi. parce que mu ñëwee aussi rubrique yi nga xam ne dafa waroon dem ci yéen yi aussi dafa dem ci feebar bi. et aussi il faut comprendre. que aussi Covid bee ñëw moo tax. mais si sa soo ren pas le Covid. tey euh, euh, balaa sama deuxième mandat bi di jeex. Mhm. naroon naa inauguré le centre de santé secondaire de Fimela. Mhm. waaw mais tey Fimela aussi c'est une commune. Mhm. qui a seize villages. et qui a trente neuf mille habitants. trente neuf habitants dafa ok léegi est-ce que askan wi moom ñu ngi gis seen bopp ci paj mi laata ñuy dem di ko jéggaani feneen. waaw ñu ngi gis seen bopp ci paj mi bu baax. Euh, yàlla def na it bu fekkee ne dépassé na infirmier yi. Mhm. parce que ñun am nañu euh, caserne de sapeur pompier. ci commune ba ci commune ba. Mhm. te loolu yëpp man maa ko fa indi ko. léegi euh, am naa aussi ay ambulance médicalisée. Mhm. j'ai une ambulance à Fimela. on a une ambulance à à à à Ndangan Kampama ambulance euh, Samba Dia. ah donc pratiquement poste de santé yi nga xamante ne nii ñoom ñoo paralysé et population am nañ fa ambulance. Mhm. fi may wax ak yow nii y' a deux ambulances yoo xamante ne nii après tabaski normalement euh, dinañ si euh, ñu may ma ko en France. Mhm. benn bi ci village bi ñu wax Simal lañ koy yóbbu benn bi ñu yóbbu ko ci Ndangaan. loolu yëpp coopération décentralisée loolu yëpp coopération décentralisée moom. ci mm, nan lan moo la may doole jooju nga ci wàllum coopération décentralisée bi. waaw parce que xam nga aussi euh, boo nekkee maire aussi da ngay gëstu. Mhm. Euh, franchement à travers la coopération décentrale j'ai fait énormément de choses. Mhm. ba fii may wax ak yow nii euh, des bus ay bus soixante mhm. tey jii fi may wax ak yow nii boo demee Grand Théâtre benn bus mu nga fa. ak conteneur u quarante pieds bu def bac à ordure. fi may wax ak nii. Mhm. à partir de mardi. Mhm. Euh, euh, de Marseille. Mhm. dinañ ma benn à déchets yoo xam ne dañ ma ko fa may. Marseille ma dañ ma ko may Nîmes ak Avignon ñoo ma may loolu. deux camions benn sept bus ak benn minibus ça fait muy huit. ah deux frigo yaa ngi dégg. ak beneen conteneur boo xam ne quarante pieds la def boo xam ne ay bac à ordures la def. bokkul ak ambulance yi biñ ma bi bi bi ma bi ma yàlla baaxee ba may ma loolu. Mhm. aw ma woon les moyens pour pouvoir faire euh, pour pouvoir payer cet argent là. pour mun a génn. pour pour non parce que. tubaab mhm. bi aussi bu la mayee ba pare. Mhm. ah il faut que <laughs> aussi li ci des yaa koy yeggali président laa dem wàllu ko bind ko lettre ne ko dama bëgg nga dimbale ma dañ ma may ay oto. ay bus. parce que su ma suñu sama commune. Mhm. am na ñoo xam ne il faut sept kilomètres pour se rendre au lycée. Mhm. seen parents yi di fay cinq cent francs par jour boo ci amee ñeenti élèves le mois c' est quinze mille soixante mille francs par jour par mois baadoole mënu ko. donc il fa lekk man ma dem uti. Mhm. loo xam ne dinaa wàcceel coono euh, ñi nga xam ne ñoo ma fal. parce que maire loolu moo loolu loolu loolu mooy rôle am. juste vraiment président bi il était sensible à ça mu yëkkati fukki millions may ma ko. ma ma versé ko Centimex France. Mhm. Centimex am na mu ngi fii Sénégal dañu am Centimex France. Mhm. am Centimex Sénégal benn répondeur buy dem directement. ma mhm. versé leen dix millions yi. yaa ngi dëgg. ma amaat beneen partenaire tubaab boo xam ne hôtel la fay def mu may ma cinq millions ma dugalaat ko. ma amaat sama beneen nattango boo xam ne Isaaxa lañ ko wax. mu mayaat ma encore euh, trois millions ma dugal ko. yaa ngi dëgg mhm. ak yeneen partenaires yoo xam ne ay Yves Crébier ak ñoo ñëpp mhm. dañ ma jàppale de bonne volonté mhm. yoo xam ne dañ ma jàppale pour que vraiment yooyu génn yooyu génn loolu yëpp bi ma ko dajalee Omar Gueye le ministre jàppale ma ci aussi euh, comme wax naa la ko léegi dix millions ma def lettre d'exonération bi yóbbu ko au ministère des collectivités locales mu transmettre ko euh, le secrétaire général de la présidence mu dimbale ma ci vraiment ñu euh, ñu def euh, euh, oto yi série AD. Mm-hmm. exonérel ma ko euh, ñu exonérel ma tout taxe douanière. loolu mm-hmm. yëpp exonérel nañ ma ko. Mm-hmm. kon état bi. def na walam. président moo njëkk ubbi kii bi. yoon bi yoon bi. vraiment ma ko ci sant di ko ci gërëm. loolu yëpp ci. léegi daa ma ne kañ lay dem dëkk ba léegi mbir yi. lan oto yeeg. lii oto yeeg lépp. dama dem gis le gars qui la grand théâtre mu ki nekk grand théâtre. fële Ansoumana. très bien yow xam nga ko vraiment bi ma wax ak moom il a été très sensible ci li ma ko wax mhm. très compréhensif wan na ma sax ne aw ma droit dencal la lii mais lii vraiment c'est c'est à saluer mhm. léegi nag mu ne ma nag dama bëgg nag oto yi bu ñu ñëwee ñu bañ fee yàgg mhm. moo tax ma bëgg a profito euh, bateau yi ñu bañ a rawante parce que yooyu yëpp xam nga benn bateau mënu ko jël parce que bi day jëlal ñi jëlal jëlee nga xam ne bu ñu ñëwee rek euh, actuellement euh, mardi. Mhm. mardi bii di ñëw. Mhm. lañ leen di chargé. dama fay nit mu dem France euh, actuellement mu nga Marseille. Mhm. du nom de Cheikh Pape Seck. vraiment c' est un ami boo xam ne aussi bi may dem Avignon moom laa fa doon fekk. mu boo ma boo dimbale ci coopération bi. xam nga euh, am na sénégalais yoo xam ne vraiment dañ leen war a dimbale. war dañ war a ñaanal. ndax li olof di naan picca nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf. juste Pape Seck genre mhm. boobu la mu nga mhm. Europe. Mhm. mais xelam yëpp mu ngi Sénégal. pourtant il n'est pas natif de Fimela. mais euh, comme daf fay fréquenter. may liggéey ak moom ak groupement euh, les groupements des femmes sur le produit les produits bio ay bisaab ak yooyu ñu ko yóbbu foofu. loolu moo indi sama lënk. ak ak l'agglomération d'Avignon. et de Nîmes. ok ba nga xam ne. Euh, aussitôt après la tabaski. ñoom dinaa jël quatre dans la commune. Mhm. ñu dem former leen pendant quarante cinq jours. Mhm. pour ñu ñuy war a di di téye oto yi. sur mhm. le système de vidage et tout ça. xam nga loolu yëpp coopération décentralisée moo la ko kon dafa mel ni yaa ngi bëgg a suqali commune bi ci fànn bu nekk wax nga ci wàllum ci santé infrastructure coopération yi tey ci wàllum euh, social. tey ci commune ba lan lañ ci mën a jàpp ndax am na suqaliku bu fa am. waaw euh, xam nga euh, film la mooy li may wax nit ñi mooy. Mhm. social bi am solo mooy. Mhm. essayer de créer des usines. Mhm. pour xam nga nit ki nga jangal ko ni ñuy nappe. moo gën ngay napp di ko jox. du dëgg. bu ñu unité di wax affaire exode rural. ñun les maires qui sont dans la la les les ruraux là. les maires ruraux là. dañu war a wax exode urbain. ceux qui sont à Dakar. di nag ay port walla ñu nag feneen ci seen liggéey demawul noonu ñu fexe ñu ñib si. ñëw dellu dëkk ñëw dellu dëkk bi. Mhm. mais euh, loolu pour nga am ko. Mhm. il faut nga am ay usine mhm. ndax yaa ngi ci. maa ngi ci ba fi may wax ak yow nii bu nekkutoon erreur erreur intercommunalité wala ay erreur rivalité entre communes. am na benn usine de transformation de produit euh, yoo boo xamante ne dafa taxawoon tembe. du war a utiliser au minimum trois cent personnes. par jour. lu yàq loolu. lu yàq loolu mooy euh, dafa am commune bu ñu lenkaloo muy Palmarin ça il faut oser le dire. Mm-hmm. foo xam ne suñu suuf la ñoom ñu ne seen suuf la te teguñ ko fen ah ba gis nga. heure euh, bu ngeen ba partenaire bi bàyyi fim laa dem Sandiara installé ko foofu. loolu aussi. Euh, mais mais loolu est-ce que waxtaan ngeen seen biir itam mën a. trouver consensus mais moom ñoomee bien sûr xam nañ ne ñoom foofu du seen alal moomuñu ko il a fait exprès est-ce que ni woon ay nit yu ñu bëggoon xëpp cere bi suuf non non c'est parce que mhm. ah, ah, euh, c'est le préfet euh, qui devait trancher mais comme on n'a pas aussi les limites exhaustives yi nga mhm. xam ne moom mooy mhm. moo tax on a fait appel également aussi à l'ANAP pour ñu dimbale délimiter leen ba am nañ plan bi am nañ la délimitation xam nañ ne foofu du seen moomeel kon mujjanteel gi yéen am dëgg mais xam nañ ne ñu ñoo am dëgg xam nañ ko xamoon nañ ko sax mais xam nga parfois aussi. mooy loolu seen dànk waaw yow xam nga rek bon man euh, yàlla dafa def dama am tur. Mhm. ci commune laa am fa woy bu rafet li may wax nii yàlla moo tax ma koy wax. Mhm. billaay walaay du dëgg. Mhm. parce que yàquma fa dara. lan laa gëm ñi ma fal. dund ak ñoom li ma war a dund ak ñoom liggéey te yàlla tax. man triché wu ma ma parce que génnuma fa kenn upp ma fa kenn dara. yàlla ma dënk commune bi ci anam yu rafet bi may ut commune bi aussi xasuma nit saagawuma nit. waxuma nit lu ñaaw ba yàlla dënk ma ko. Mhm. lu dëgg sant naa yàlla parce que mon nom est entré dans l'histoire de Fimela. Mhm. suba élèves dinañ ko jàng. qui était le dernier président de la communauté de Fimela dañu naan Karim Sène. qui a été le premier maire. Mhm. dañu wax Karim Sène. loolu rek sant yàlla la. loolu ku mu doon leneen du la doy. te ba fi may wax ak yow ni alhamdulilah am mhm. alamin ci wàllum léegi usines yooyu suqali commune bi ndax yaa ngi ciy xalaat taxawaat ci yeneen yoo xam ne ci fan nga ci toll parce que wax naa ci ak ay yeneen partenaires surtout ci euh, euh, la gestion des déchets am na ay entreprises yoo xam ne bugg bëgguma ko wax fii mhm. yoo xam ne lëkkaloo ñu ak ñoom ñu ngi ficelé un programme bi am na ku personne de bonne volonté bu ne fi la mhm. bu ma jox un hectare ci kaw tali bi boo xamante ne nii loolu rek lay def dañuy def usine bi. Mhm. def système de triage. Mhm. Euh, am ay jël ay employés. Mhm. ba ba. ndaw ñi mën a am xëy ndaw mën a am xëy. ba muy indi ba muy suqali. du dëgg. ñu mën a def loo xamante ne ni aussi dina dina indi koom-koom ca euh, kii ba parce que bu ñuy def système triage bi. jël mbalit bi ak yooyu ah mun nañu am énergie. ba jaay la ci Senelec. ça va créer de l'emploi. beneen bi mooy wax naa sànq ne am na ay ay camion frigo yu ma war a indi. Mhm. bi ma demee Turquie. Mhm. ñoom zone ba ma nekk. Mhm. am na village bu ñuy wax Ndangan Samb. zone nu napp la du dëgg. bi ma demee Turquie ñoom nee nañ dañoo bëgg di exporter du poisson à partir du Sénégal. du dëgg waxtaan na ak ñoom. parce que wóor yàlla rek laa jóge Turquie. Turquie dem naa Istanbul. gis waxtaan na ak ay investisseurs. yoo xam ne ils sont prêts pour venir. Euh, travailler avec avec avec la commune de Fimela parce que man je suis un un produit de la pêche. Mhm. ci transformation bi. man mhm. euh, euh, napp jën mhm. laa jàng. parce que j'ai été formé sur les techniques de gestion des quais de pêche. yaa ngi dëgg. jën yu bëri mun naa la wax heure yi muy jur. parce que loolu jàng naa ko. formé nañ ma ci lu ci lu bëri sur les pratiques de pêche. ma xam ko jàng ko. moo tax ma sama xam-xam màcc ci affaire jën ma am ci ay connaissance ba mu tax usine boobu ma la doon wax noonu loolu la euh, pro jën yi nga xam ne moo nëb di yàqu mm-hmm. moom la waroon di récupérer di def farine ak huile de poisson mm-hmm. mais bon euh, euh, amul problème parce que. Mhm. Euh, yaa ngi ci yeneen projet li ma la ci wax moo ci ne. waaye mhm. yàlla yàlla comme jeexul. Mhm. amul benn problème. yéene yéene bi ma am ci commune Fimela la loolu la. Euh, te incha allah yàlla dina ma dimbale ba ma motali. te da jàpp ni loolu dina mën a créer emploi ci biir commune bi baax a baax a baax tey lan lañ a ndaw yi ndax ñu ngi am xëy bien vrai que yow yoroo compétence bi ngir utal leen xëy mais mun nga créer ay conditions itam. waaw euh, ndaw yi am na ñu ci am xëy. Mhm. parce que am na ay auberge fa nekk ak ay campement du dëgg euh, napp ba aussi mu nga fa am na ay mhm. xale yoo xam ne am nañ seen i gaal. Mhm. bu tubaab bi ñëwee ñu dem ak ñoom pique du ci frato ñu ngi yëngatu. am na ñoo xam ne ñu ngi dem mbaali si pax. ñëw bon tànn na. mais mun na ëpp loolu. mais ñun dañoo bëgg ay usines yoo xam ne. ñi nga xam ne du ñu napp du ñu def leneen mun di xëy di dem di ñëw. on veut créer de l'emploi mm-hmm. man de sama vision. yaa ngi ci yoon sama vision ci cinq ans yi di ñëw. Mm-hmm. foofu laa koy mat ah, matale. ok ok incha allah. donc euh, waa wàllum social bi itam ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum infrastructure euh, am na lu changé lu bëri tey xar kanam ñu bëri dañ naan ñun amuñu maison de la femme. Euh, yeneen ak yeneen ak yeneen tey est-ce que infrastructure al jumtuwaay nekkinu askan wi lépp ñoŋ na foofu. waaw euh, nu mu maison de la femme. Mhm. yàgg na am fi mu laa maison baa nga fa mais peut-être euh, xam nga am maison de la femme. Mhm. Hmm? tur la rek place bu jigéen ñi di dajale rek la. Mhm. def fa ay réunion def fa ñun am nañ centre culturel. boo xamante ne nii fa la gars yi di defee yenn réunion yi. maison de la femme yu njëkk yi. ministère de la femme. Mhm. dafa am ay monitrices yu muy doon. yóbbu yóbbu. Mhm. ci communes yi. Mhm. du dëgg ñooñu ñoom ñoo doon former femmes yi ci euh, ci ay couture. ah ni ñuy ñawee ah ak ak aussi xam nga les certains canevas de projet ni ngeen di étale yooyu la. mais boo xoolee euh, structure yooyu ni mu doxee ni mu waroon doxee. doxul noonu parce que une locale nous sommes un démembrement de l' État. état aussi dafay indi ñoo xam ne dañu war a jàppale les collectivités locales du dëgg mhm. noonu la affaire bi demee donc euh, euh, FIBLA tey par exemple ci wàllu stade mhm. stade municipal mhm. am nañu accord ministère de la pêche dëggal ministère du sport Matar Ba ba lancé nañ appel d'offre bi ba ki gagné marché bi ñëw na ba ñu xool terrain bi. mais dafa wax jam jamono yi ñu ko war a tàmbalee. tombeek nawet bi borom tool bi ne il faut ñu may ko mu bay ñu bàyyi ko. Mhm. parce que aussi nit ki la may tool ba pare boo doxi moom yenn nii métti na ma lool nag mhm. parce que heure bi ren dama amoon yaay ne ne xale bu ñu fubal nawetaan foofu lañ koy fubale mhm. mais xam nga naa la expliquer benn affaire yaa li liy différencier la ville ak le village ñun tàmmuñu nawetaan jot nga clôturer sa terrain muré ko ngay fay ay paas nit dugg xam nga da xamoon nga. waaw ñun suñ nawetaan mooy. taxaw seetaan nga te seetaan. Mhm. supporter sa équipe. Mhm. tàccu yuuxu doo fere dërëm. Mhm. li ngay fere mooy paas bi ngay paas. oto yi ngay dugg ñëw seet. dem jamono tam jamono day dox itam. jamono day dox. mais euh, xam nga am na loo xam ne aussi boo ko bëggee indi bërët rek. indi ko muy coppite. c'est comme l'acte trois. de la la communalisation intégrale. bu njëkk euh, communes yi da nga doon def ay alignement. ñi ci dëkk. ba da ngay tabax. Mhm. doo am autorisation de construire doo am dara. Mhm. mais léegi les choses ont changé léegi da ngay dem Fimela par exemple tey da ngay commencer construire Descos ñëw taxaw ne la da ngay uti autorisation de construire da ngay uti lii uti est c' est ah mais tamit il faut ñu jaar ci yoon. mais il faut jaar ci yoon mais mhm. xam nga jaar ci yoon am na. mais je te dis une chose. tey un paysan boo xamante ne nii tey. Euh, euh, fe euh, lu mu tati foncier bâti. Mhm. quatre vingt dix mille wala soixante mille par an bu ñu ko bëggee laaj pour nga koy fay. Hmm? réew tax mun na ko mais ba doole mënul loolu mënuñu gaaw a gaaw dab ville te li ñu def. maanaam faaw ñu dem step by step ndànk ndànk. ndànk ndànk. Mhm. que loolu la président wax wax aussi ndànk ndànk il faut pas que euh, nit ñi aussi changer le président dafa bëgg gars yi dem ndànk ndànk. Mhm. du dëgg. ce qui est valable par exemple à Fatick étant une grande ville ah n'est pas valable à Fimela mhm. du dëgg ce qui est valable à Dakar n'est pas valable mais monsieur le maire itam war nañ jóg tey comme man su ma la waxee rek sama village ñun ban doon football wala di seetaan match dañuy ñëw taxaw di seetaan léegi tey itam jamono day dox ndaw yi itam dañuy bëgg foo xam ne fu ñoŋ la foo xam ne askan wi dinañ fa mun a football mais bi sûr waaw dinañ fa mun a toog di seetaan match ndax yow yaa ngi leen di waxtaan jëmale ci bor boobu mais loolu laa la wax parce mhm. que état municipal suñ ko defee ba pare te mhm. am projecteur am mhm. am lépp parce Euh, euh, ministère dafa lay clôturel mhm. dafa la grillage mhm. nga dem AGETIP def fa demande mhm. ñu defal la tribune dooral la say projecteur c'est par étape ok li commune bi eggali ko gazon yeeg yooyu yëpp ay lijjante la parce que man même bi ma a Turquie gis naa ñoo xam ne pare nañ pour ma jàppale la ci gazon ci loolu yooyu yëpp maa ngi koy dox mais euh, du loo xamante ne nii nday ndar day xëy sotti. Mm-hmm. mais am naa ci yéen am naa yéen bi. te bu mm-hmm. soobee yàlla. Mm-hmm. Euh, euh, balaa may jeexal sama troisième mandat. parce que am dinaa ko am. ça c'est sûr. Ah, loolu dinaa ko def. lan mooy bilan bi bilan bi tey bu bu ñu la jëlee ci atum 2014 ba tey tey lan nga wax askan wi bilan bi sa bilan lan la tey. un bilan très positif laay wax mënuma ko lim lim naa sante tey su ma la waxee dans le domaine de l' éducation. Mhm. waaw pàcc boobu. pàcc boobu tey. Mhm, mhm. Euh, li ma construire te ay salle de classe mot na trente sept salle de classe. ci biir commune bi ak li ko wër ci biir commune naa lu mot sept école primaire équipé leen ay table banc aussi classe yi dañ dem ba ne ne film la cent abri provisoire. yaa ngi ci bi may gagné. en 2009 j'avais trouvé des abris am na village boo xam ne bëgg ma ko tudd fii ndax loolu rafetul sama première inspection bi ma demee ci dëkk boobu dama dem fekk euh, euh, euh, classe yi ay gitax la woon ñaari classe foofu keroog sama yaram dafa daw ma gis chef de village bi waxtaan ak moom gis directeur bi waxtaan ak moom ma ne ma leen ren je vais faire de salle de classe ici ma construire la ñaari salle de classe yi amoon guitax yi parce que hmm. jaan moo fa mosoon euh, génn ba élèves yi daw ma construire fas ñaari salle de classe clôturer école ba pour sécuriser ko sama premier mandat rek bi may def deux ans et demi rek ah bi ñu ma évaluer j'étais la le seul président de communauté rurale qui a eu la sixième génération du PNDL ñu doté ma une enveloppe de vingt millions ndax liggéey bi ma liggéey li may wax nii ci rajo lay wax te hmm. li may wax fenn amu ci parce que lépp lu ba la wax rek dëgg la parce que man du ma du ma un maire fantôme. Mm-hmm. dañ ma fal je suis membre du conseil mais laa di ko liggéey. Mm-hmm. malgré que euh, mm-hmm. fi def Dakar une semaine. su ma nekkul euh, seen film laa ba ma nekk su ma fa defee dix jours yu ma fa nekk xamal na dama jël avion dem tukki parce que dama gëm ne dama war a liggéeyal sama sama gox. Mhm. maa famille est à Fimela mënoon naa def comme yeneen maire yi indi sama famille indi sama lépp Dakar Nord Foire la am appartement foofu laa loué non defuma loolu sama famille sama toute ma famille est à Fimela parce que loolu mooy yoon parce que pour liggéeyal leen moo tax parce que ñu may fal yaakaar boobu lañ amoon ci yaakaar boobu bëgguma mu tas. moo tax maa ngi ciy sant yàlla bu baax. wax nag donc bilan bilan bu positif la tey am na loo xam ne bëggoon nga ko def am sa mbébét la euh, nga bëggoon ko def si mandat bi antuwul lan la ak tey lan moo gën a jàmp tey ñu def ko fi mu la mooy centre de santé bi ma la wax nga xam ne amagul. Mhm. ak le pont de Simal. pont bi foo ci tool. pont bi franchement bëgg naa euh, euh, ministre bi jàppale ma ci. Mansour Faye mhm. waxtaan nañ ci yebal na le DG de l'Ageroute le directeur général ñun ciy jëf ay jéego xool na ko mais Covid bi peut-être moo xaw a baare yéen yi mhm. mais gëm naa ne Mansour Faye taxawaay bi ma gis mu taxaw Kambé mhm. chaque jour muy laajte di imprégné wu incha allah yaakaar naa ne sax bu ma bañul juum balaa balaa balaa bala balaa euh, ay fan dinañu wax lu leer ci pont Sibal bi parce que am na yéene bi. pont bi lan la xanaa jafe-jafe yi. non parce que Sibal. Mhm. dafa nekk un village historique. Ah boo xamante ne nii ñu ci dañ fay dem dafa sangat digganteem ak laa dafa am traversée boo xam ne benn pont lañ fa defoon boo xam ne euh, liggéey bi baaxul. président joxe ay instruction mhm. pour ñu jox ko pont bu mucc ayib. pont boo xamante ne nii day nekk euh, parce que pont bi sept cent linéaire la. yaa ngi dëgg mhm. donc euh, dañ koy def pont boole kook Ramblay goudronné ko à partir de Fimela parce que goudron bi mu ngi dem na ba Fimela Fimela toutes les routes sont goudronnées amul pënd Fimela ba da ngay boo jógee Dakar mhm. boo ko jaaree bon ba balaa ngay egg Fimela ba Ndangaan Samb yëpp goudron la boo ko jëlee Joal jaar Samba Dia ba Palmarin ba Fimela yëpp goudron la macha allah président Macky Sall amul luñ ko wax côté côté goudron man commune Fimela laa bokk mm-hmm. yàlla rek moo tax may wax mm-hmm. grace à au président Macky Sall moo tax ñu am ci caserne sapeur pompier bientôt ñu ubbil ñu une maison de justice réfectionné naa ko maa koy liggéey léegi mu pare mm-hmm. normalement balaa dans deux mois dinañ ko installé loolu yëpp yokkute la yokkute la ak fu ñu doon dégg tey Fimela ak tey maanaam changement moo tax soo gisee picc yeeg ñëpp di naan Fimela Fimela Hmm. ku xamoon fi laa bu njëkk xam ko léegi xam ne Karim man jaay naa fi mu laa nee naa la dama liggéey fi mu laa fekk xam nga séeréer lamb la xam <laughs> waaw waaw ah waaw bi ñu doon tëgg ay lamb hmm. ay saaku lañ doon lal saaku xottu saaku yi lañ doon wërale lamb bi ma ñëwee maa dindi loolu maa xotti saaku yi clôturer la arène de lutte yi ba ñu tuddee ma arène de seen Karim Sène àndangaan si am arène de lutte rek construire naa ci lu ma six kon loolu yëpp ci euh, euh, nouveau nouveauté la. ay innovation la di def ay turbine ci biir arène yi. boo demee Ndangan Samb. bu mhm. fa duggee ba gis turbine ba ma def foofu ci biir arène ba da ngay naan déedéet. kon yow sa bilan kenn mënu ko xajamal turbine mhm. sama bilan kenn mënu ko xajamal. te balaa nga koy xam élection jot doxantu rek laay def lay walaay. justement élection yooyu noonu tey. Euh, faaw ñu wax ci parce que ñu ngi dem ci élection ñu ngi ci processus yi ndax candidat nga nar doon ci élection yi. xam nga affaire candidature moom man dama am kilifa. du dëgg. Mhm. muy président Macky Sall. mu tànn ma def ma ni plénipotentiaire arrondissement bi man may tout ce qui est chargé de d'élection dans tout l'arrondissement man la ko président res depuis 2009. ba tey 2009 laa gagné fi mu laa ci APR. waxuma ci APR. dekkal ngor dekkal ngor parce que amuñu woon kii mais dañoo demoon dans le cadre du Benno. <laughs> ma gagné fi mu laa. xam nga ne ku ku ku ku Macky novembre 2000 euh, président Macky novembre 2008. Mhm. la am problème ak Ablaye Wade. novembre de euh, mars 2009. ñu mhm. dem élection. ma nekk président communautaire ci partem nga gagné ko. ma nekk président communauté rurale foo xam ne fiefu PS la woon AFP ak ñëpp ma ñëw ak ak PDS ma ñëw gaje kon yàgg naa ci terrain bi. Mhm. j'ai fait mes preuves. président am sama confiance ngëm ma jàppale ma ndax aw ma woon moyen mais amoon na yaakaar ne Karim dina gagné fi mu la ma nekk fa PCR ba tey 2014 ma nekkaat candidat am on est allé seul aux élections sans coalition sur les 46 conseillers j'ai eu les 36 sama liste bi ma faloo au premier tour bi ma sous-préfet di installé je bi ma bi ñu ne qui qui sont les candidats bi ma yekkatee loxo benn APR yekkatiwul loxo. consensus. consensus parce que bi ma sama mandat bi mu jeexee en 2009 ma ñëw dama woote ñoo ne la mandat baa ngi ci kaw table bi seet lu leen doy. Mhm. ñu ne ma Karim boo jiitawul liste bi kenn du gagné. boo jiitawu liste bi dañuy daanu kon liggéey rek a wóor. 2014 ndax da ngay defaat bilan bi ci kaw taabul bi ñu xoolaat. wala yow bii da ngay demal sa bopp wala ngay déglu. noo xam nga président xam na li xew. ah lu xew ñun xamuñu ko. ñun non maanaam maanaam Macky Sall. Mhm. il est le mieux renseigné. c'est le président de la république. lépp luy xew ci gox yi xam na ko. képp kuy sabarlu wala ngay def ay ngeloo xam na ko. képp ku am base xam na ko Macky parce que xam na xam na ay nitam moo ma formé. Mhm. moom moo ma forme bu ma xoolee rek dinaa xam bët bi mu ma xool ndax lépp lu ma xam ci politique ak lépp lu ma mun moom la. mais bu ma demee 2009. Mhm. bay gagné fi mu laa. c'est mhm. parce que ka ma doon dooleel moom la. moo tax ba mu amee problème ak Ablaye Wade ma topp ko parce que mënu ma ko bàyyi parce que moom laa xam te duma ko mos a wor. jamais au grand jamais jamais. lépp lu mu wax rek moom lay def. élection yi lu mu la wax moom ngay def bu la nee ba tegal sa candidature ci suuf nag. mooy sama njiit te yaakaar naa loolu du ko wax parce que tegal sa candidature ci suuf ci commune laa moom. Mhm. yaakaaruma Macky sa wax mais xam na ne base fu commune fi mu laa Karim moo ko yor. mais Karim Sène yow rek ne ko tamit APR gis nañ Marème Thiam Babou gis nañ ko tey fan yi mi ngi ci terrain bi mi ngi dugg ci film la moom naam ñun dégguñu ko si gémmiñam mu ne soxla na mairie bi waaye ni muy doxalee mel na ni sa kaw la jëm de. Euh, euh, naka la gàttu date sax. Mbemba Dramé la tudd. Dramé ci ci rajo laa lay waxal. Mhm. képp koo gis muy wër fi laa di dox billaahi laa la wax de billaahi laa la giñal yemuma fii kooku gay wax noonu bugguma sax du dugg ci ay turam wala may may koy may ab buzz tuma moroomam man dama nekk maire bu commune am gëm bëgg ko Samba Dia Samba Dia fa mu yeewoo mm-hmm. billaahi laa la wax ni maa ko moom maa ko teye ci sama loxo moom fii fam fa mu dëkk wax amul fief fiefu commune Fimela man maay sama fief fief la commune de Fimela ku yore fiefu commune Fimela ki yore les voies de la commune de Fimela Karim Sène la man mii di wax ak yow la. mais mi ngi def ay ay ay ay tournée ci biir commune. bi monsieur le maire nga ne. kooku tey. waaw mais posé dara ci dëkk bi. ma ne bu ko neexee mu def ay tournée man sama doxantu rek xëjul ci kaw kenn ci ñoom man maa la wax lii tey billaahi azim. parce que wan euh, foyewuma commune ba dama toog ne faax di liggéey xam nga politiciens yi dama la population yi mhm. ña ngay fekki yaakaar ne yaa ngi leen di nax munoo leen nax ñoo la gën a muus comprendre nga soo ñëwee maire bu toog di liggéey yow nga toog lu mot quatre ans cinq ans kenn gisu la mhm. mun nga nax nit ñooñu dama lay wax rek danga jàpp ni dafa ñëw di. doxantu maanaam joxu waxuma pour cadre kese. Mhm. ñeneen am na docteur docteur yi fa nekk am na Touré ñoom ñëpp. itam bëgg nañ. voilà euh, bëgg nañ ci euh, fi nga toog siège bi nga toog lañ bëgg itam. waaw ñoom dañu bëgg am nañ ci droit. Mhm. parce que man fi ma toog. Mhm. nit a fi toogoon. du dëgg mairie du sama kër ndey du sama kër baay du géño xam ma li ma la expliqué. man dama dama ko ut ba jël ko ku mu neex aussi nga laaj mais gagné ma fi mu laa moo mun tane ah yow instant bi ñu toll nii. Mhm. déedéet population bi xalaatuñ ko man maa la wax lii tey tey laa laa ko wax bindal nga signé nga ñu ma jox la rendez-vous après les élections tu verras que ce que Karim a dit est une vérité. yu nekk ci Fimela yëpp yow la amul village bu ma dul gagné man maa la wax lii tey te le jour des élections jàpp ko boo toogee ba 11h minuit nga woo ma laaj ma village par village ma jox la escort yi. ma lu la may doole jooju ba nga mën a. wóor liggéey ak maasawu ak ñoom. gëm na doomu adama laa comme ñoom gëmuma gëm loolu ñoom ñu xam loolu xam ne man yërmande lay dox tappalewoo ma defuma magie yaa ngi dégg respecté ñi ma fal boo ñëwoon fi mu laa tey ñu ne la kii mooy maire bi non da ngay naan non parce que man gëw ma li yi di gëm ga gëm wane ay folie de grandeur loolu amul sens parce que nit ki mënulaa fal ba pare ah nga gën ko boo nekkee mais da nga war nekk jàmm askan bi la fal man loolu laa gëm loolu lay dund te suñu commune noonu loolu lañ xam kenn mënu leen kenn mënu leen jaay dara parce que bu dee ay cadre am nañ ko ba mu doy. Mhm. bu dee ñu am xam-xam am nañ ko ba tey ba mu doy bu dee ñu am fula am nañ ko ba mu doy xam nga lan lañ gëm. di mhm. leen yëg faalew leen. xamadi du la jox re euh, du la jox pouvoir du fu la fu fuñi du la ko jox. Mhm. jaay maanaa wala jaay yenn yi non non non fi mu laa ay population yu consciente ñoo fa nekk. gëm seen bopp xam li ñuy liggéey. alors monsieur le maire xam nga ni ni ki ëllëg la ñuy euh, yóbbu li nga xam ni moom moo jëm ci yeesalaat modification code électoral bu yees bi ci assemblée nationale lu bari war a changer maanaam anam gi nga xam ne war nañ ko falee tey maire yi bu njëkk conseil yi lañ doon tànn bu ñu tànnee conseil ba pare ci biir conseil yi ñu daal ci tànn maire léegi mode élection boobu dafa war a changer yow maire nga lan moo ci sa xalaat gu njëkk ndax ànd nga ci changement boobu. ànd bu baax. xam nga tax ma ànd ci. Mhm. Euh, franchement nit ñi bu ñuy fal dañoo war xam kan la ñuy fal loolu mooy yoon parce que booy fal nit yenn conseillers yi ngeen dem ba ci biir ngeen dem élection suffrage indirect le maire était était élu au suffrage indirect. Mhm. da ngeen dem ci suffrage direct ba pare ngeen pare conseillers ñoo falaat la conseillers yooyu mun nañ la war. te ñam ña yë si yëkkati seen carte dañu naan comme Karim moo jiite liste bi. Mhm. yaakaar naa moom mooy falu. yaa ngi dëgg Karim boobu jiite liste bi gañe nga génne ay maletu xaalis fale dox ci conseil yi nga xam ne gëmuñu yéen yi nga jaay nga jënd leen ñu votel la loolu aussi déception lay indi ci population bi. Mhm. loolu mooy indi li ma lay wax nii su ko defee da nga gis euh, un maire boo xamante ne nii. Euh, dañ euh, vous êtes euh, maire par accident am na maire yoo xam ne c'est des maires sax yoo xam ay maire accident xam nañ ne Karim moo jiite liste bi bu gagné bon moom ma macha allah moom mooy falu mais day fekk Karim buy defal liste bi aussi dinaa xam ne dinaa teg ñoo xamante ne duñ ma duñ ma war mais su fekkee ne par exemple da ngeen bàyyi ay conscience ne yéen ñëpp paccaxoo leen dem élection. Mhm. ngeen dem élection nit ñi fal Karim ba pare. ngeen jaar fale te mérité wu leen ko kenn du leen gis buñ la falee ba pare kenn dootu la gis. ah vraiment population bi du souffrir te maire du caaxaan maire da nga war assister sa population. kon da nga jàpp ni euh, député yi ñoom dinañ ko voter. mais bien sûr dañ ko war a voter parce que loolu mooy yoon. Mhm. dañ ko war a voter mu jàll. képp ku ñuy falati dina xam ne diw mi la ñuy fal loolu mooy yoon. ok ok léegi ñu jógee foofu Karim Wade ak Khalifa Sall L 31 L 32 article yooyu opposition bi ñoom seen xel ñaaw na jàpp na ni Macky Sall daf leen nar a galgal ci atum 2024 ba ku ci nekk ñoom ñu ngi jóg wane taxawaay APR nga bokk ndax jàppoo li ni mm, ñooñ dañ leen nar a faagaagal. non xam nga man nag euh, euh, copain dafa am question yoo xam ne duma ma bugg a dugg. Mm-hmm. xam nga li tax parce que euh, muy Karim Wade. muy Khalifa Sall. Mhm. ñoom ñëpp ku ci ne peut-être amoon naa xam nga loo def. Mhm. du dëgg du dëgg. Mhm. am na loo def ah ba am lu lu la dal. du dëgg euh, euh, nit nag nit rek ngay doon am na loo xam ne ci compétence su président la. ak justice justice justice mooy atte xamal nit ñi dañuy confondre parfois vitesse ak précipitation. du dëgg dara day ne paret ñu ne président fekk président du dogal loolu. yoon mooy def yéen yi. Mhm. article yi euh, article euh, xaw ma la. 31 32 32. du président moo ko créé ah. c'est des articles yoo xamante ne nii avant Macky Sall di nekk président de la mhm. République. mais eh jàppoon ni ñoom tam dañoo war a bokk ci élection atum 2024. non loolu yoon moo koy définir mais du man. ok parce que man xëccoo ma réew. Mhm. Ah? man mairie lay xëccoo <laughs> yaa ngi ca film waaw te candidat nga waat. te candidat la incha allah. ñaan naa yàlla. nekkaat ko. yaa ngi dëgg mhm. ndax xam naa ne président du masani mhm. ndax maire buy liggéey mhm. di am ay résultat toog ci commune am di liggéey kenn du ko weccoog leneen man assurance laa ci commune Rufisque laa am na solo loolu moom mun naa la ko wax ku mu neex nag ngay wër di wax wala ngay dem ci ay réseaux sociaux réseaux sociaux du fal nit am fukki nit fii fu juróom benn nit nga multiplier ko jël image jàpp ni ñooñu noonu mm. réseaux sociaux lañ nekk mais yow mais dama lay wax ne man sur le terrain laa ne ok man réseaux sociaux ma chaque jour maa ngi sama population bés boo jëloon maa nga jël un lundi ou bien un mardi. Mm-hmm. ou un jour ouvrable nga ñëw mairie rek def inspecteur rek xool. Mm-hmm. nga gis ful ba fay nekk chaque jour nga xam ne commune laa mu ngi dox. caaxaan téyewu ko. Mm-hmm. liggéey moo fa ne. monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni ñu lee invitation bi jóge ba laa ñëw fii ñu daal di def émission bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax man itam maa ngi leen di sant mhm. bu baax a baax a baax mhm. parce que franchement euh, pour la première fois mhm. hein, ma am rajo bu ma invité am na rajo bu ma mos invité mais invité wu ma directement dafa ñëw fekk ma fa ma rek jël ma en interview mais toog ci plateau rajo. ah fii fii Dakar. Mhm. fii rek laa ko def télé yi nag dañ mhm. may dama fay dem. mais rajo pour la première fois réew mi FM. ma ñëw toog vraiment. kon maa ngi leen ciy sant. di leen ci si gërëm. di leen ne gën leen xuus ci àll bi itam incha allah nee nañ mbaam gat na waaye ci jur bi la bokk ñëpp si lañ bokk incha allah ah. àll bi <laughs> mhm. am na des maires compétents mhm. yuy liggéey mhm. yu dimbale seen askan yi yu suqali seen gox comme fi mu laa fi mu laa dama ko leeral nañ ni mu di ku ko xamoon dëmb xam ko tey xam ne macha allah am na euh, changement euh, maire dor mu daanu liggéey na fi mu laa ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax moom Karim seen nekkoon suñu gan ci émission gox bi di gërëm Bassir Cissé moom mi nekkoon ci xarale gi jox leen mbokk yi dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci émission gox bi.